tey kay moom journée la. ah bon fii la ñuy jaayee ndékki. fii yu ñaaw yi salte yi. journée sans ndékki la. mais fii gaañ kenn waru fee lekk. xoolal la xoolal xoolal. man marché central seen mbaaru nii la. fii mbaaru ndékki yaa lii moom lii moom rafetul moom. lekk gi fii lañ koy jaay. ma ne la fii la ñuy am na ñu fiy jaay nii. xoolal muy nii. non. fii la ñuy jaay ndékki xoolal. muy jaay fi nii yàpp. muy nii yàpp ni ci biir ndox mi nii nga gis lii de lii lii lii c'est honte non bàyyi li ngay wax yow it force bi moo moo ba pare jaagatu ndékki bi ne ci wetam nii mais affaire bi garaaw non marché central yéeme na marché central yéeme na oh. kii moo jaay yàpp bi nii oh mais kii fi muy jaay garaaw na moom xanaa fayul ay droit. bu koy fay ay droit kay man jaay ko na dem na dem na dem rek. na dem est-ce jaay ko na may na ñoobal mu ngi nii jaay ko ndekki baa ngi. sëñ bi na jaay ndekki fii. kii mooy jaay ndekki eh gestu eh gesul yow dañ lay dañ lay dégg fi yow. bu bu ñu defal la sa mbaal waaw muy noonu ah. non non yaa non non du am. c'est wax nga dëgg de wuy ma gaaw naa ci samu jaama liggéey moom. c'est grave c'est grave. waaw ñu ngi noonu ay borom yaa ngi ni kenn liggéey. jën yëpp a ngi nii. ñu ngi nii naar yaa ngi. moo jege moo jege mar xol ko. waaw ah, ci ñi indi jënu maro bi la ko. mu ngi nii toog mu ngi jar. mu ngi mu ngi ñoo liggéey. wala gars yi ci biir mbaar wala. gars yi yëpp ay jaagatu jën la. bon. Oi. Go. Go.